On y va. xam nga ni Dakar lu neex na. fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk ak xarit igfm point sn lëkkaloo ak youtube slash tfm dal leen jàmm ci seen de presse populaire. la RP Pop moo leen di indil li gën a fas ci yéene kaay yi ci ay yu bés bii ñu toll. fan la fi fan la dañuy cëppilu fi nga xam moo di rond point Colobane ñu koy wooyee Colways l' observateur moonu wax ni mag mat na bàyyi cim réew mu mel ni bu fa booloo taxoon noonu moo fay sosode waaye gàkku ak ñi mu àndal ci wax manko waxtu Sénégal ñoom neen dañuy booloo jàkkaarloo ak Macky Sall ci législative yi nee nañ jox nañu cër Abdoulaye Wade jox dikk nañ ko suñu nopp ci li nga xam ne moom lañu conseil dinañ ci dox Khalifa Sall mi ngi ci biir liste yi Guédiawaay nag Aliou Sall taxu ko jug moom gàkku wala naan koy jéem a xeex waaye liñ ci jublu mooy ñoom leader yi conférence des leaders kenn ku ci ne fexee ba gagné li nga xam mooy sa base. day wéyale ak yéen fi fan la fi fan la wallaay ndakaaru neex na la tribune yéen a kaay moo cëppal fi nga xam moo di faja fii impôt domaine bi moo daal di séparé golf sud ak li nga xam moo di Parcelles Assainies yéen a kaay bi dafa dikk ci nga xam moo di Khalifa Sall mer na de ca dëgg-dëgg Sall mu mel ni nag mbir moomu jeexagul. ku ma jox paas jox ma yóbbal ma lànk du ma ñibbi de ndakaaru dafa neex walaay wax nga dëgg xam nga ko xarit yi ñuy seetaan fii fan la fii fan la fii moo di tali bu mag fi nga xam moo di Pikine mu mel ni marché Zeng ak tali bu bees fii nag la daal di fóonantee xalif général kulli yéenekaay l'observateur lu mu fësal dëgg la de nee na man ko wattu Sénégal ci xeex bi nga xam ne jàkkaarloog Macky Sall ñoom nag liñ ko dig ndaw yi ñoo ko daal di indi Barthélémy Diaz Thierno Bocoum bu réew mi Massali a wàcc fi nga xam ne di boulevard général de Gaulle Pikine Rufisque ak Bargny ci xeex boo xam ne pëndu Hitler bi moom lañ daal dikk waa Benno Bokk Yaakaar. wul fan la fii fan la ah dañuy wàcc si fi nga xamante ni nag moo di a ah, poste Thiaroye yi poste Thiaroye yi moo nekk nii de walaay Ndakaaru neex l'observateur lan la leen won moom nag dafa dikkaat ci mbir mi nga xam moo lëmb jamono yi mu mel ni suñu borom moo bañ képp koo xam da ngay jëddu ci ki nga xam moo di Nadège ak xaritam bii ñu naan Liliane ñoom dafa mel ni loolu la ñu def de loolu ñu def ñaaw na lool jël ay photo lii ko jum jaarale ko ci li nga xam moo di internet bi ba adduna bi yëpp jot ci ñoom nag teg nañ leen loxo yóbbu leen fi nga xam moo di kaso na nga camp pénal mbir mi ni ngi koy wëlee wëlee li nga xam moo di enquête bi Nadège lu ko war a dugal ci loolu parce que lii ko jum nee na moom mu yónnee photo yi ci li nga xam moo di whatsapp loolu nekk ñoo xam mbir ma doy na waar lii que nag moom ca dëgg-dëgg nee mbir mi naqari na ko waaye di ko très dund tamit de mi nga xamante ni laal na lalakkee moom ak ki nga xam moo di Liliane ñeel ay miir yu lënd mooy daal di tiim ci li nga xam moom lañ def te dañ koy bañ sanction yi nar a wàcc ci seen kaw dina doy waar ndaxte nag te dëgg-dëgg bëgg mburu ku mu jay ba nga dugg fa mburu génnee woon boo fa duggee ba génn soo moytuwul nag mburu moo lay tane mu mel ni législative 2017 yi di am nañu nag mbër bu bees taq bu samp ndëndëm victime de sale coup kooku nag mooy Aïssata daal Sall moom nee na nag dafa mel ni dafa bokkoon ci li nga xam mooy alternative 2017 bu xam ni Khalifa Sall ak ñi nga xam ni Bamba Dièye ak ñëpp ñu ci bokkoon dan ko daal di mel ni dan ko war wala dan ko ndax moo tax mu taxawal li nga xam ni oser l'avenir moom nag nee na dina wone boppam ci législative yi di ñëw ba tax na ku ko bëgg a gis fekk ko grand théâtre dina débale dina yaatal dina wone li nga xam mouvement si soutien bi mu am ak fi dooleem toll ñu dee ca dëgg-dëgg wax ma la ndakaaru neex na waaye dafa coq ba ñama ñiit ma cëppeelu fii nga xamante moo di boo maraîcher mu ngi jàkkarloo ak marché du poisson képp kuy génn réew mi fii ngay jaare mbokk diaspora bi nag dafa leen wax ni direct info muy dikk na dikk ci xabaar moo xam ne metti na lool ki nga xamu di Cheikh Amar ak soxna Marie am na nañu tiis wu rëy seen doom Serigne Saliou Amar ñàkk nañ ko koor bi nag indi nañ ko jullee nañ ko dañ ne nag ñu ko yóbbu fi nga xam ci moo di Touba wala fi nga xam moo di Diourbel foofu lañ koy daal di denc ci diwaan boobu mu mel ne Kader Ndiaye ak ki nga xam ne Diomaye Faye ñun ñëpp teewoon nañ ci mbir moomu mu nekk tiis boo xam ne wat na ci kaw Cheikh Amar ñun ñëpp ñu koy jaale inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yéen ci la flop de la semaine l'observateur moo ko daal di fësal mbir mii doy na waar xale bi nga xam dañ ko sàccoon yegg ci kawam mbir moomu doy na waar waaye papa ji mooy wax ci l'observateur nee doom ji ca dëgg-dëgg li ko def ñaaw na nee lii xamul naka ko nit mën a defee moom amul sa xaalis bi mu jëlee doomu ay ordonnance te bëgg nañ def li nga xam moo di test ADN ci li nga xam moo di doom ji wàllu lamb yéen kaay naan la tribune Papa Sow <laughs> jeex na je vais vaincre Papa dama koy daan Ama Baldé def na ñetti weer fi nga xam moo di tugal wàcc si ne nee na aye bi wàcc na kii di xam moo di Papa bu jàkkaarloog man ca dëgg-dëgg ci lay xam ni lépp dëgg la dama koy daan. yéenekaay bii ñu naan tribune nag mu mel ni yéenekaay bii ñu naan l'observateur moo fësal Eumeu Sène ca dëgg-dëgg Eumeu Sène nee na Bombardier bu reculé wul bu taxawee xeex ak man dama koy dóor mu wàcc. déedéet kay Bombardier ci boppam bu reculé wul dama koy dóor mu wàcc mu nekk combat boo xam ne kenn ko ci ne boo déggalee sa bopp ragal naa dina am kenn koo xam ni taximaan bu amul versement yaa koy gën a gaaw ngir ay xel yu metti mbaxtan ki nga xam moo di Bombardier nee na man dinaa ko jàngal li ñuy xeexee ñu desandi ak l'observateur mu dikk ci mbir mu ñaaw bi nga xam ni xaw na diggante Nadège Liliane ak ki nga xam moo di Lika Diom dañu jël ay photos yoo xam na ko ndeyam jure woon ñu dugg ko ci internet bi ñoom nag déglu nañ leen ci boo mooy procès bi dinañ ko laaj ci ay fan lu toll juróom benn kaso Nadège boo may ko def fi nga xam moo di lungu sin làq nañ lañ jant bi moom mu mel ne leen photo yi da ko jël parce que nag kii di Lika da ko yéene woon benn xaritu tunisien boo xam dafa ne woon da koy takk dañ bugg nag kii di Liliane di wax ni ñu xam kan mooy Lika waaye loolu vie privée jàmbur la jarul ñu koy fësal ci nga xam mooy la voie publique ku dee ca marché ba yaa tàgge sa bopp ba tax na jamono yi kii nga xam moo di Nadège ak xaritam bii di Liliane te dëgg-dëgg laal nañu laalaake ca guddi yi nga xam ne tiim na leen dëgg-dëgg ay gindi la yoo xam ni bët set nag mu gaaw a set mel ni mbokk ak xarit yi ñu doon seetaan revue populaire bi fii lay wàcc mooy jaajëfal ñu doon seetaan ñëpp Mangone Fall sama xarit ba nekk ca Italie booru Torino Caramagna ak soxnaam Mati ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di nuyu Ndiock Malick Dieng le promoteur bi nekk Londres Angleterre suma xarit bu baax ak sama turando Bara Fall ba nekk États-Unis nga xam moo di Albanie Bassirou Dieng sama doomu ndey la ñu ngi ci Ndakaaru yéen ñëpp ñu di wax nii dañuy dem naa ni ndox bu suba jàmm dem di kat musta yàq ngoro